des compteurs euh, ñu war a jóge la norme SPS1 dem euh, dem SPS2 Senelec nag bi ñuy commencé compte bi ñuy commencé utiliser compteur euh, prépayé yi en 2005 dafa affilié woon à la norme SPS soo déggee SPS mooy le système de transfert de code standardisé donc depuis 2005 mi ngi affilié wu ci ci association boobu objectif bi nag euh, objectif opération bi nga xam ne ñu ngi koy war a def à partir du quinze c'est vraiment d'améliorer la sécurité mais améliorer également l'interopérabilité entre le système de vente euh, des comptes et, et, et les parce que boo xoolee Senelec du benn euh, fournisseur rek moo koy jaay compteur Senelec day def euh, day préparer ay spécifications techniques am def appel d'offres donc ku nekk koo xam ne répondre nga ci spécification yooyu mën nga gagner ça veut dire que on a beaucoup de types de compteurs dans notre parc donc pour une pour améliorer interopérabilité boobu nga xamante ni entre le système de vente et les différents compteurs loolu tam nekk na deuxième objectif bu mise à jour boobu mais troisième objectif bi mooy dafa ñuy permettre ñu dem vers un système euh, intelligent intégré c'est-à-dire conteur système client à travers une application mobile donc loolu mooy objectifu mise à jour bi naka la naka la naka lay deme nag à partir du quinze à partir du quinze client bu jënd crédit dafay recevoir trois codes les deux premiers codes c'est les codes de mise à jour du compteur mais le troisième code c'est le code de crédit donc day dugal premier code bi validé dugal deuxième code bi validé son compteur léegi et mis à jour donc compteur am jóge na norme STS. loolu benn yoon rek benn yoon rek nga koy def. benn yoon rek nga koy def amul benn incidence sur le tarif amul benn incidence sur le nombre. Hmm, yéen a nga wax boobu ba léegi ne du yokk dara ci courant bi waaye loolu pour dugal ko ci bopp nit ñi dina jafe lool ndax courant bi seer na ba noppi. Babacar nga yokku am processus ma fàttali la ne Senelec dafa nekk dans un environnement normal. avec un régulateur qui veille au grain sur ce que Senelec fait donc Senelec amul droit def lu ko neex lii mise à jour rek pour permettre au client compteur am jógee norme STS 1 vers dem norme STS 2. Mm, Mouhamed Ali Mouba am na a laaj. madame loolu nag loolu nag loolu nag dañuy demander une forte implication du client parce que euh, processus bi il faut que client bi impliqué wu bu baax a baax a baax cest dire avant muy def mise à jour compteur am à partir du 15 clients yi nga xam ne amoon nañ jëndoon nañ ay code de crédit dencoon ko parce que am na ñoo xam ne dañuy jënd denc code yi code yooyu yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu chargé ko seen compteur avant le 15 balaa ñuy def mise à jour parce que bu ñu defee mise à jour code yooyu compteur bi du ko mën a reconnaître ba tax na daal ñu ngi leen di demander ku fi yore code de crédit boo jëndoon avant te chargé guloo ko na nga ko chargé ci balaa balaa ngay def sa mise à jour. à partir Ba ci ci wàllu ci wàllu compteur Woyofal ci mise à jour yi dégg nañ ko euh, euh, Babacar wax na ko un peu euh, boo waxtaanee ak nit ñi luñ lay wax mooy que. compteur woyofal yi déjà woyofalul c'est c'est plus cher et aussi mise à jour bi boo moom ñoom day gën a tax yéen ngeen contrôler euh, lu ngeen di jox nit ñi ci wàllu kilowatt euh, heure et puis loolu day tax ngeen gën a contrôler et puis euh, wàññi en tout cas courant bi parce que nit ñi loolu la ñuy wax nee nañ lu ngeen di joxe ci courant ak tarification bi tolloowul. Mouhamed Aliou mën naa ne mise à jour bi. de Sénégal kese du sous-région bi kese ça concerne plus de cinq cent compte cinq cent compagnies d'électricité à travers euh, plus de quarante pays et pour plus de soixante millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc c'est une norme universelle qui se met à jour. bu Senelec kese encore mais pourquoi les les les les populations am perception nii que euh, woyofal bi parce que déjà woyofal normalement dafa gën a war a gën a woyof et ils ont les populations la perception que woyofal bi moo gën a diis. <laughs> woyofal bi gënul diis en fait incompréhension la rek expliquer. peut-être que mais mais lu ñuy ressentir ci kër yi lu ñuy ressentir foo jaar. nga dégg ay ay compteur di yuuxu euh, loolu tamit problème la. <laughs> non compteur yi yuuxu moom dama leen di wax léegi ne boo bañee sa compteur yuuxu mën nga def le code 812 pour éliminer alarme bi sa compteur dootul yuuxoo. waaw loolu moom boo defee huit cent huit cent douze sa compteur moom. du loolu moo a am solo <laughs> man am solo mooy euh, ni bi di gaaw a jeex nit ñi seen compteur yi di sonné tintet gi foo toll di ko dégg. waaw ni courant bi di gaaw a jeexee nag sa utilisation la bu fekkente ne yow def na say appareil def sa crédit courant bi bu gaawee jeex c'est en fonction de l'utilisation euh, des appareils appareil yi nga def bu ñuy ñuy utiliser courant bi moo tax courant bi di gaaw a jeex. madame loolu loolu loolu loolu la Senelec madame madame loolu la Senelec yàgg wax ne waaw appareil yi ñu utiliser bu tàngoor bi ñëwee nit ñi dañuy jëfandikoo ay climatiseur ñiy jàmbat seeraayu courant bi yëpp du ñëpp am ay climatiseur ak i machine yu ñuy taal seen kër courant bi day jékki-jékki rek seer daa mel ni da ko koy ci suuf te nit ñi duñ ko yëg. loolu moom bu dul Senelec bu ñuy tëb tëb yokku ndànk ci suuf te kenn du ko yëg loolu régulateur bi moom mën naa la wax léegi ne régulateur bi mi ngi veiller au grain. est-ce que des fois yéen nekku leen nekku leen jay estimation parce que boo waxtaanee ak ñenn ñi dañ ne indi nañ ma facture bii nii cette fois quatre-vingt mille bon c'est vrai que xëy na dama doon utiliser climatiseur boo ko arrêté il t'amène à peu près la même facture soixante mille soixante euh, soixante-dix mille que euh, euh, où la logique dans ça. mën naa la rassurer léegi ni la. est-ce que des fois du ñu nekk rek estimation des fois. non estimation jot sa Senelec ça fait plus de dix ans ñun fàtte nañ sax lan mooy estimation képp koo xam ne jot nga sa facture c'est sur la base d'index relevé te am nga possibilité dem sa compteur vérifier index boobu par rapport à index bi ñu la mujjee facturé donc boo mënee lire sa facture di gis ne index bi ñu la mujjee relevé ak index bi ci compteur bi am na am na une évolution. waaw am na une évolution donc loolu amul benn problème estimation moom jeex na Senelec yàgg na fàtte nañ ko sax moo tax bu ko nit ñi di wax léegi sax daf ñu xaw a jaaxal. est-ce que mën nañu xalaat un jour euh, bon euh, <laughs> en tout cas vu le contexte nu mel nii est-ce que baisse courant bi mën nañu xalaat en tout cas dans les prochains mois peut-être dans les prochaines années baisse courant bi euh, parce que loolu ngeen doon wax euh, day avec l'énergie qui va arriver euh, dañuy baisser courant mais les difficultés économiques ñu gis ni est-ce que njàpp nga ni c'est possible waaw c'est bien possible parce que avec l'arrivée du gaz et du pétrole c'est bien possible mais dañuy sukkandiku rek si li nga xam ne le ministre de l'énergie def na une sortie il y a annoncé que ne dans euh, euh, euh quelque temps il y une baisse euh, des tarifs de l'électricité loolu tamit dañ koy rafetlu di xaar également la mise en œuvre naka lay demee di ko delloo nag. madame loolu loolu duñ ko gëmagum. ndax fii lañ wax ni dindi nañ fi troisième tranche nit ñi foog ni yëf yi di gën a seer troisième tranche woyofal ñu wax ne dañ ko fiy dindi biñ ko dindee ak ni mu demee. maanaam dindi nañ ko waaye li am ak li fi daan am benn la yëf yaa ngi ko ni di seer ba léegi troisième tranche bi dindi gi ban ban ban njariñ la am finalement. taxawal ma wax la ñun nag loolu ma annoncé léegi dañ koy gëm parce que c'est la haute autorité du ministère moom moo def une sortie wax ko kon nag dañ ko koy nangul di xaar rek encore une fois de plus la mise en œuvre di ko bàyyi aussi ak la primeur pour mu donner les contours de cette de de ce réagissement tarifaire mais daal on et on attend la mise en œuvre. Maintenant, en revenant sur le, euh, la la troisième tranche effectivement la troisième tranche dindi nañ ko parce que boo xoolee tey prix bi ñu lay jaayee deuxième tranche moom lañ lay jaayee troisième boo xoolee moom lañ la koy jaayee kon ñu jàpp ne troisième tranche boobu dañ na mais nag boo am na boo dépassé nag léegi sa deuxième tranche nag di fay nag TVA foofu la TVA bi di duggee. Hmm. mais prix troisième tranche bi prix deuxième tranche bi moom mooy actuellement prix troisième tranche bi mën nga ko vérifier fu nekk. yii fi dafay jaxasoo ci sunu bopp yi sax doo doo sax comprendre quoi. <laughs> bon loolu dañ la koy nangul Babacar. waaw mais parce que euh, euh, man man mën naa ko jéem a comprendre waaye ñu bëri ci askan wi théorie gi ñuy théorie ci courant bi naan seerut ak yokkuñu koog ak li xew ci kër yi dafa wuute. waaw liggéey si kër yi nag xam nga nag boo amee sa ay appareil muy consommé yow. madame appareil appareil appareil yi xew ci jamono benn du ci jël courant moom kay facturation bi moom moom mooy coow li. déedéet facturation bi di coow li parce que ba fekkente ne yow am nga sa appareil boo xam ne mi ngi fonctionné depuis plus de vingt ans sa frigo bi fonctionné depuis plus de vingt ans nga bëgg ko branché léegi bëgg ci am. sax bëgg si sakkanal sa si énergie bu nekk parce que appareil yu mag. frigo vingt am na kañ am na de appareil yu màgget yooyu li ñuy laaj si énergie pour mën a fonctionner dafay dafay bare trop. loolu tamit ñu ngi ciy sensibiliser clients yi pour que ñu dem ci am na appareil yoo xam ne ça leur permet d'économiser de l'énergie yooyu nañu dem di jëndi appareil yooyu. pour que seen ay consommation mun a wàññeeku. parce que hmm. les pensions appareil encore une fois day tirer beaucoup de vertu te loolu tamit day gaaw a jeexal seen crédit. yaa ngi dégg xamuñu ko. Hmm, yaa ngi dégg ci wàllu subvention bi nee nañ subvention à l'énergie euh, ba moyul dañ koy dindi léegi naka lañ mën a kon wàññee courant bi ba xanaa kay peut-être mu yokku. xam nga affaire subvention nag tey taxul ñu ñëw fi li ñu tax ñëw mooy affaire euh, euh, waxtaan ak suñu clients yi sur la migration c'est-à-dire la mise à jour de la norme STS1 di jóge STS1 dem STS2 loolu moo ñu fi taxaw bu ngeen ba beneen émission nag dinañ leen ñëw waxtaanal ci subvention bi loolu yëpp ñu waxtaan seeg yéen mais tey daal dañu bëgg ngeen bàyyi ñu ak suñu clients yi ñu expliquer leen naka la ñuy demee si mise à jour bi nga xam ne à partir du 15 octobre lañ koy def parce que encore une fois de plus su fekkente ne client bi à partir du 15 deful mise à problème mun na am su fekkente ne compteur euh, nekk na en panne Senelec war a générer un code de maintenance pour dépanner ko foofu dina am problème d'autant plus que le code généré par le système c'est un code boo xamante ni STFD la mais compteur am dafa bu ko mise à jour ba léegi donc ce code là ne se sera pas reconnu par son compteur moo tax ñuy insister encore une fois de plus sur la mise à jour à partir du quinze client bu jënd di nga am sa trois codes les deux premiers codes c'est le code de maintenance et le troisième code c'est le code de crédit donc loolu daal encore une fois de plus ñu ngi si euh, demande clients yi ñu béyee bu baax a baax et question boo xam ne mën nañ ko poser nañ ko poser. Euh, on a compris ah madame le message est déjà passé mais courant bi moom duñ ko waxtaanee rek di yem ci ay changement de code li ci laxasu yëpp lañ ciy wax parce que euh, boo xoolee tey jii fol bi. sawaay euh, da ngay euh, yéemu sax daal ndax euh, compteur yi lan mooy différence su nga jënd ko tey jël dix mille def ko ci mu jox la nangam ci ëllëg sa nga jënd beneen dix mille mu joxe lu gën a tuuti xeetu problème yooyu la nit ñi am. waaw parce que c'est par tranche xam nga njëg gis nga koy koy jaay en deuxième tranche. ma fàttali na encore ne deuxième tranche la yem troisième tranche njëgu deuxième tranche bi dañ la koy jaaye mais TVA bi dafay dugg boo jëndee sa premier achat du mois lan moo fay dugg mooy euh, la redevance bi nga xam ne mooy la location du compteur la taxe communale bi nga xam ne mairie yee ko moom la ca des ñu transformé ko jaay la ko jox la ko crédit mais boo accès euh, nañu fàttali ne limite première tranche bi sa quatorze mille quatre cent quarante et limite boo boo fa àggee euh, le client a cent cinquante kilowattheures en première tranche boo dépassé ces cent cinquante kilowattheures yaa ngi dem deuxième tranche te prix wu deuxième tranche bi se différent parce que moo gën a élevé prix wu première tranche léegi boo dépassé également le le la la limite de la deuxième tranche dugg nga troisième tranche bi nga xam ne nag quel ko soit alpha moom loo jënd prix wu deuxième tranche la mais di nga am Euh, la TVA bi nga xam ne moom lañ lay facturer et ñun ñëpp moo ko moom. mais am na ñuy am na ñuy jàpp ni itam euh, nu ngeen di fonctionner euh, dangeen bari macha allah et puis aussi peut-être charge yi dafa diis loolu bokk na ci lu tax courant bi tamit métti lool ci citoyen ça n'a rien du ay charge yi di am wala les charges du personnel wala entre autres gis nga les charges du personnel. c'est un pourcentage très négligeable par rapport aux charges moom kañ li ñu war a wax mooy il faudrait que ñu am des d'autres sources d'énergie aller vers le mix énergétique am gaz ak pétrole boo xamante ni dinañu permettre les coûts de production wàññeeku pour que ñu mun a dem vers une baisse des tarifs et cetera parce que bu fekkente ne diversifier nañu les sources d'énergie produit à la couleur leen dina wàññeeku mais les charges du personnel n'ont rien à non rien à voir encore une fois de plus euh, euh, euh, jotewul ak dara li nga xamante ni moom mooy le coût de l'électricité le coût de l'électricité encore une fois les tarifs sont fixés par le régulateur te y a un pour que ñu mën a fixer les de l'électricité am mm. na mm, am na jamono ji xayma guñ fi waxoon ni mi ngi am ci ci loola jëm ci facturation bi loola fu mu fu mu tollu nag moom xayma bi nga man comprendre ma xayma. oui euh, je je veux parler de de cette étude là euh, une étude euh, sur la facturation euh, waxoon nañ ko fi est-ce que loolu am na boo amee itam fu mu toll. waaw am na am na sans suite en cours c'est une étude boo xamante ni la CRSE maanaam le régulateur la commission de régulation du secteur de l'énergie moom moo wut ay auditeurs pour que ñu saytu le système de facturation de Senelec loolu tamit ñu ngi fi boobaak léegi ñu ngi recevoir auditeurs yi lu ñu laaj ci information ñoo ngi leen koy jox lu ñu laaj ci document ñoo ngi leen koy jox xam naa ñoom it def bu ñu paree CRSE ki nga xam ne mooy régulateur bi dina révéler étude boobu lan la lan la lan la euh, conclusion bi étude boobu CRSE dana dana ko révéler mais pour le moment pour le moment c'est une étude qui suit son cours donc ñu ngi nekk di travailler ak CRSE ak auditeurs yi nga xam ne. Hmm. mandaté na leen. yéen nit ñi dañuy fay seen courant fayal leen fayal leen yéen waa Senelec ñi fay liggéey tax du ngeen fay loolu tam loolu moom ba kañ. Babacar loolu tamit il faut que mu arrêté parce que ñu nit dañuy fay courant ni ngeen di fayee courant. nan ci naka madame. ñun dañuy fay courant actuellement bu ñu jëndul crédit duñu consommer suñu kër waaw. loolu xanaa lu bees non non non non ça toujours été comme ça peut-être que prix ba ñu koy jaayee moo gën a moins cher tuuti prix bi nga xam ne ma ngoog nag ma ngoog mais c'est normal parce que yéen fu ngeen di liggéey am ngeen fa ay avantage déedéet nag feneen fu ñuy liggéey am communiqué bu ñu jàllale fii ci sunuy mbokk koy dañ koy fay <laughs> ah waaw mais daal société bu nekk ku fay liggéey am nga avantage yoo xam ne moo liyewu ah société boobu muy si ndox mi muy si faneen ak faneen ak faneen am nga fay avantage mais nag dama lay xamal léegi que ne ñun nous avons un euh, nous avons un maanaam suñu quota dañ ko encadré bu ñu jëndee tey prix bii bu ñu dépassé bi nga xam ne moom la ñuy jox dans le mois nous allons acheter l'énergie au plus cher maanaam au tarif le plus cher. Hmm. moom lañ koy jëndee. baax na léegi bu ñu dépassé quota bi nga xam ne moom la autorisé dans le mois leneen lu fi topp dans le mois ñu koy di jëndee prix wu. deuxième tranche léegi ñu ngi xaar la hmm. ñu ngi ñu ngi xaar le euh, di euh, changement euh, système mu woyofal bi ñu leeral mbokk yi ne trois codes yi ngeen wax ni moom ngay dugal pour dugg ci système bu bees bi benn yoon rek nga koy dugal mu jeex. boo bu jàllee benn yoon nga koy dugal mu jeex bu jàllee booy chargé benn code rek ngay jot dugal. benn code rek ngay jot. Hmm. loolu moom da ko client yëpp xam. aussi sur le fait ne ku yore ay code de crédit yoo chargé bi na ko chargé avant le quinze parce que après le quinze compteur bi boo defee mise bi du ko reconnaître jërëjëf donc ngi ñu ngi demandé daal ñu veillé ci loolu bu baax te ñu impliqué aussi processus bi nga xam ne ñun ñoom lañ koy defal dégg naa la nga naan ku dencoon sa code balaa la quinze dugal ko mu gaaw mbete denc dafay am fii gars yi ay deux mille ak trois jënd ñaar ñetti fan mu jeex du mais am na ba tey ñoo xam ne ñu ngi denc ay code yoo xam ne changé ko kon nañ ko changé avant le 15. <laughs> Tabara Ndoye Ba jërëjëf